santé et de l'action sociale pour ce léger retard à la lecture de notre communiqué du jour. Communiqué numéro 70 de ce dimanche 10 mai 2020. Le ministère de la Santé l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 1356 tests réalisés, 75 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,53%. Ces tests positifs sont répartis comme suit. 70 contacts suivis par nos services. 5 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi. Wagunyai, 1 Grand Yoff 2 cas et Touba 1 cas. Sept patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Sept cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann, 4 cas graves en prise en charge, hôpital régional de Ziguinchor, un cas grave. et l'hôpital principal deux cas graves, ce qui de sept cas graves dans nos services. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal vient d'enregistrer son 18e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme de 75 ans demeurant aux parcelles Assainies. Il est décédé ce dimanche 10 mai 2020 à 6h15 au centre Couemo de l'hôpital Fan. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille attristée. À ce jour donc, 1709 cas ont été déclarés positifs, dont 650 guéris, 18 décédés et donc 1040 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. gannaaw bu ma jàllalee jéggalu ministère de la santé ci tardé bi ñu gis tey ci lecture communiqué bi dina leen jox xibaar yi nga xam ne moo tukkee ci bësu tey di dimanche 10 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di waaja limal ci junni ak ñetti téeméer ak junni téeméer ak juróom fukk ak ñetti test yi ñu def juróom-ñett fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukki cas contact ak juróomi cas communautaire benn bi ci waagu ñaay benn bi ci Yoff ñaar yi ci Grand Yoff benn bi ci Touba juróom-ñaar ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñaari cas yu sonn ñu ngi ci suñu service de réanimation yi hôpital Fann ñeenti cas hôpital principal ñaari cas hôpital régional Ziguinchor benn cas ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi des ci hôpital ci hôpitaux yi seen wërgu yaram seen yaram mu ngi am tan Sénégal am na tey fukk ak juróom-ñetteel yi cas de décès bi nga xam ne feebar bi moo ko indi muy benn góor bu am soixante-quinze ans dëkkoon ci parcelle Assainies ñàkk na bakkanam tey dimanche 10 mai 2020 ci fajar bi bi 6 heures 15 ci centre Kouemo bu hôpital Fann ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy jàllee njabootam ci bésu tey dale ko ci kaa bi nga xam ne moom lañu njëkk am Sénégal waññi na junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeenti cas juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñetti wër si fukk ak juróom ñett ñàkk si seen bakken mu des ci suñu structure hospitalière yi junni ak ñeenti fukk junni ak ñeenti fukk cas ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu dolli di sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant